gaaxi tukkal desu ko perngal mboccoor ki nga xam ne moo di Coura Macky wax na ci Baye Mbaye MC Niass ci benn émission boo xam ne entretien exclusif la ko jox ci Feeling Dakar TV ci la génn ay audio yoo xam ne ojo la yu muy wax ak Baye Mbaye MC Baye Mbaye MC ci boppam di ko envoyé ay message di ko xamal ni ko bu ma Sénégal gi yëpp wàccoon itam yow dama bëgg nga daal di may waar moom Coura Macky nag la mu ca teg moom moo di am na ci ojo yoo xam ne duma ko teg mukk nit ñi di ci teg seeni nopp di ko déglu ndax saaga ya te dama respecté sénégalais yi moom Baye Mbaye MC Niass moo waxal boppam ci biir audio yi di wax naan man du ma ab sëriñ ab MC laa ab nigameen laa boo xam ne damay nekk ci milieu showbiz bi moom mi nga xam ne moo di Coura Macky nee na Baye Mbaye MC na ànd akuk dal ki nga xam ne moo di Serigne Bara Ndiaye borom def gis moom ci boppam laa bëgg xamal ne ko li muy wax dara du ci dëgg li muy wax amul fenn fu mu koy teg loolee mooy li tax ma ñamal leen tuuti ci audio yi waaye li ci des bu ñu këppee caméra yi tëj micro yi dinaa leen ko wan ngeen déglu ko su di ngeen xam dëgg-dëgg ana yii fi fan la nekke moom Coura Macky daal dinay détruire ki nga xam moom moo di Baye Mbaye MC ba noppi daal di weddi baara Ndiaye borom def gi gis ma dem ci Balla Gaye numéro 2 le lion du Guédiawaye Balla Gaye numéro 2 fils du Double Less moom Balla Gaye numéro 2 ginnaaw combat bi doxoon ci digganteem ak Boy Niang doomu Pikine bi nga xam ne moo ko terrassé gannaaw ba mu daanee saa ca daan ko moom mag ci di Balla Gaye numéro 2 Balla daal dina génn wax ci combat bi nee na yëf yu metti na defet lu metti la waaye dañu koy teg ci loxoy suñu borom dañu koy sant yàlla te xam ne lu gën la nit lu gën kottu la yàlla di def ci yow gannaaw Balla Gaye Boy Niang itam wax na moom Boy Niang la mu wax ci Balla Gaye mooy nit ku baax la Balla Gaye Fafa di ko jéggalu mboom ak i mbokkam am na ci loo xam ne ca jamonoy signature yi la woon te signature signature la lépp luñ ci war a waxante dañu koy waxante ngir jaay suñu combat jamonoy combat bi lépp lu ñu mën a def ngir mën a jël suñu ndam dañu koy def lépp lu ñu mën a def itam ngir mën a jaay komba bi ba nit ñi bàyyi ko xel ci loole la ñu nekkoon waaye grand bi nit ku baax la grand bi nit ku dal la maa ngi koy jéggalu di jéggalu ay supporter am lépp loo xam ne def naa ko ci làmb ji lamb mooy li ko laaj lépp loo xam ne geste la commentaire lépp lamb mooy li ko laaj ci moom booy daal di ne ko geste bi nga def ko ci ko joxoñ ko ci suñu borom dafa mel ne am na looy wax foofu le mu ne loolee doon def waaye buñ ci jàllee jàll nañu ko ñu ne ko doon waxante diggante waa kër Balla Gaye ak waa kër Boy Niang mu ne mooy li ko waral waxuñu fa benn wax bu dépassé mbaa ñu wax fa wax joo xam ne dafay déranger ay doomi aadama lépp lag ci làmb la ñu ko tegoon kon nag yi fi làmb la dañu ko yemale ci loolu su weesoo weesu na su jeexee jeex ni ma koy faral di waxee ma dem ci le roi di mbalax gannaaw roi bi nga xam ne moo nekkoon ci làmb ji moom Youssou Madjiguène Ndour mooy le roi di mbalax fii ci Sénégal Afrique yëpp daal di ko koy nangul moom Youssou Madjiguène Ndour boole nañ ko ci ñaari téeméeri waykat yi gën a aay ci àdduna wërngal këpp ci biir ñaari téeméeri waykat yooyu la Youssou Ndour daal dinay dépassé Michael Jackson taxaw ci kaw bopp Bob Marley Youssou Ndour ma nga ca 69e yi nga xam ne ñoo dàqaway ci àdduna wërngal këpp Youssou Ndour doomu Sénégal bi ci Sénégal daal dinay jël juróom benn fukk ak juróom ñeenteelu place ba taxaw ca ba noppi itam nekk waykatu Sénégal boo xam ne ñëpp a ngi koy bàyyi xel ci àdduna wërngal këpp ca grand balam ba mu doon amal ca grand théâtre Mbathio Ndiaye seen nañ ko fa moom fecckat ba woon mu daal di génn ca grand bal ba daal di baal koom ñëpp bége koom ñëpp waaye tam wane na mu mel ci Youssou Ndour ak cofeelam ga muy ànd ak Youssou Ndour saa su nekk bu Youssou woote dañu fay seen Mbathio Ndiaye mu taxaw ci wet ga Astou Dione publier benn texte boo xam ne daf koo jagleel Pape Alé mi nga xam ne jamono jile mu ngi ci diggante dund ak dee ndax jafe-jafe bi dox ci ma muy wér-gu-yaramam ak ñàkk lekk gi nga xam ne ñàkk na koo lekk moom Astou Dione ma ngay demande Pape Alé Niang di sàkku ci moom mu daal di arrêté grève de la faim gi mu nekkee ba noppi itam nanguñu daal di koy faj maanaam docteur yi nga xam ne bëgg nañu ko faj na Pape Alé Niang nanguñu jël aw wér-gu-yaramam daal di koy defar ba mu jag te ñoŋ moom Astou Dione nee na Pape Alé Niang xam nañu ne si xeex bi nga xeex dëgg la ci yow waaye bis boo ko uutee xeex bi dafay daal di nërmeelu dootoo am kenn ku la ci mën a dimbale ñun nag ñu ngi lay jàppale ba fu mu mën a yem ñu ngi lay jàppale ci suñu biir xol ñu ngi lay jàppale ci anam bu mu mën a doon bu ñu sañoon da ngay teg grève la faim bi ci suuf ba noppi itam nangu ñu lay fa nga bàyyi xel sak njaboot ndaxte sak njaboot bëgg nañu la bàyyi ñu xel ñun ñi nga xam ne say consœur lañu ak say confrère ak ñi nga xam ne dañu lay bàyyi xel bëgg la loolu le Pape Alé Niang tegal lépp ci suuf te nga juga dellu siwaat ci xeex bi loolee la ñuy sàkku ci yow Buubu Nduur mu ñu seen mu toog ci wetu yaayam di ko jaay cekke ak di ko wax naan yaayu Youssou Ndour moo ngi nii yaayu Boubacar Ndour moo ngi nii muy maire Ndeye Soxna Mboup moom Bouba Ndour gis nañu ko mu taxaw ci wetam di ko njaay cekke di wane ni ñoom ñaar am nañu complice di wane ni itam moom Bouba Ndour ku fonk la ku bëgg yaay jala Wally Ballago Seck defati na jaloore Wally Ballago Seck defati na moom Wally Ballago Seck ab oto su luxe la daal di yëkkati jox ko maire Khady Ndiène Seck maire Khady Ndiène Seck mooy yaay ci Benzema ak yaay ci ki nga xam ne moom moo di Mbaye Sy Ndiaye moom maire Khady Ndiène moom la coon Ballago Seck doon way rek bàyyi ma te du tolu bàyyi ma te itam yor na sama rakk ji moom Khady Ndiène Seck Wally Ballago Seck dafa yëkkati ab oto bu lëmm bu rafet te jekk loolu kaar macha allah teg ko ci ay yoxam xamal ko ne ko maa la ko may yow bàjjen booy ñi nga xam ne ñoo teewoon caabi oto boobu di ko tagg ak di ko kañ di ko barawoo ak di ko bàkk di ko xamal ne ko tàmm ngaa def li la yow képp koo bokkal teral nga ko képp koo bokkal tatagal nga ko lii du guléet ci ñu bu doon saa su nekk nga jox ñu suñuy loxoy kuuñ kon deseetuñu benn ab loxo bu ñu mën a nangoo say teraanga Balago Seck yal na la yàlla sàmm ndaxte lii nga def tey jàppal ni coon Balago Seck sa baay ba nga yëkkati caabi bi oto fekk ko fa mu tëdd nekk ko am fa mu tëdd ca noonee nga ko defee gannaaw Xadi sekk sa bàjjan la te bàjjan mooy ba teraanga ji nga ko jeex xeebuñu ko dañu koo yéem faar moom Wally Balago Seck jëfam joojule neex na aw askanam mbokk yi kenn du lëndëm di taal làmp bu ñuul lumière bi feeñ na sëriñ seex as barxaama borom li jaaba nekk ku yàlla baaxal ci wàllum xam-xam kenn naa tableetul ni moom mooy sëriñu Real de Madrid waaye tamit di ñaanal leen ki nga xamante ne mooy équipe nationale bu Sénégal coono jeex na jaaxle jeexati na yéen ñi doon wër lu baax te gisoo leen ko dal leen a jàmm ci sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow miy cat sonal ba loo dugg doo ci am ndam wala sax say mbir daal di dëgër loolu gaawal gaaw dem seeti sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow mii di wut wala sax ngay tukki mu daal di dëgër loolu yow ab ba amagoo borom kër wala sax amagoo soxna gaawal gaaw dem seeti Serigne Cheikh Ass Barxaama borom li ba yow mi bëgg a seetlu baa sax li si xaar foo mënti nekk si àdduna bi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama mu daal di leeral say mbir lépp koo teg si alxuraanul karim Serigne Cheikh Ass Barxaama borom li jaaba dafa taxaw temm ngir dimbali jaam ñi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama borom li jaaba si 77 219 52 58 wala si 77 882 24 77 wala it si 77 982 55 40 ak Serigne Cheikh As Barxaama borom li jaaba dimbali jaam yi mooy suma aaj.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 del déglu del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer Feeling Dakar yaa nga am info yu ci people et sport politique Feeling Dakar